al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam audu billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani arrahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sëriñ xabbaan ñi ngi lay ziyaara di ziyaara mboolem waa daara ji di leen ndokkeel ci bés bu màgg bi tey ñaan yàlla nangul ñu ñu tàmbalee ci laaju aji laaj gi jëm si idda muy soxna soo xam ne bi mu amee doom ba ay fan wala weer boroom këram faatu ndax dana jar mooy iddaw wala du ko jar ngir wóor na ne moom àndul ak dara te jotewul ak boroom këram bi mu amee doom ak léegi aha dana iddawu ni ko alquran santaane ni ko lislaam yoonale ci jëpp jigéen joo xam ne mu ngi sëy ak ab jullit eh, jigéen ji sëy boroom këram fase ko dafa am lu ko war muy idda waaye ki boroom këram génn àdduna ñaari mbir ko war mooy idda ak ixdaat ixdaat mooy li ñu dee teñu eh, ñoom ñaar dañuy duggante léeg-léeg ñu ànd léeg-léeg it ñu tàqali ko comme ki ñu fase xidda rek lay def waaye kii boroom këram faatu daa war a boole ñaar yëpp xidda buñ ko waxee mooy diir bi muy toog waaw du du jigéen ñëpp ay xiddaw buñ leen fase nag ndax kii takk soxna wàcc ko njëkk muy joteeg moom njëkk muy wéet ak moom kooku xidda soxna su xidda waru ko bu dul loolu nag soxna si xiddaw moo xam borom këram dafa faatu wala dañ koo fase diir bi muy àddawu du saña a waxaale lu jëm cib sëy kenn du ko mën a tekk kenn du ko mën a takk kenn sañu koo takk kenn du ko ngoro ba iddaam di mat bu dee kii borom këram faatu nag diir boobu muy toog da ci boole lépp loo xam ne luy yokku taar la ci ay solam wala ci diw yi muy diw ci yaramam wala kawaram wala ay xeet yu muy jëfandikoo yépp mu bàyyi ko naka noonu génn di tukki ak di dem ci yoo xam ne yu mën a ñàkk la yooyu da koy bàyyi loolu lañuy tuddee teñu ba diir ba mat euh, laaj bi nag ci teñu la jëm jigéen ji boroom këram faatu diir bi muy addawu te adda ak teñu bi ñooy ànd alquran da koo yaxal muy ñeenti weer ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan loolu mooy bu dee as gor la bu doon jaam bu jigéen ca ba jaam di am genn wàll gi muy ñaari weer ak juróomi fan loolu nag jigéen ñëpp ñëpp ñi àddawu ñi ngi ci biir bépp jigéen bu borom këram faatu rek bu dee as la ñeenti weer fukki fan bu dee jaam la ñaari weer ak juróomi fan ba mu des jigéen ji tollu diggante. ki nga xam ne boroom këram faatu na fekk mi ngi tollu diggante mi ngi àndal dara kooku moom alquran dafa yaxal moom it wa ulaatul axmaali na ay yadana xamlahunna loolu dafa baywul benn jigéen bépp jigéen bu toll diggante xedda jàpp ko bu amee doom rek fala xeddaam di jeexe kon soxna si boroom këram faatu fekk mi ngi toll diggante xeddaam mën naa gaaw comme man naa yéex ndax bu dee ëmb buy bu door tàmbali masalan mën naa yàgg lool weesu ñeenti weer ak fukki fan lu bari waaye it mën naa gaaw soxna si boroom këram mën naa faatu tey mu am doom tey tay wala suba du tee lay mbir tey mbir mooy xeddaam jeex na xedda nag bu jeexee day jeexalaale ixdaat muy teñu loolu mooy wax yi boroom xam-xam yépp daanaka borom ñeenti ngir yi dëppoo nañ ci loolu ak li ëpp ci seeni taalibe doonte am na ñu wax dañuy nettali jëlee ci ibnu abbas waaye wax nañ sax ne moom wax jooju gannaaw gi dañ na ci ñuy nettali jëlee ci ali ibn abi talib ak ku ñuy wax sax noonu ab sëriñ la ci borom xam-xam yi mazhab imam malik ñoom dañuy wax na jigéen ji borom këram faatu fekk mi ngi tollu diggante xiddaam mooy aqsal lay ne maanaam bu amee doom te ñeenti weer fukki fan matul day continuer jàpp idda ba ñeenti weer fukki fan mat bu ñeenti weer fukki fan matee te amul doom day continuer jàpp idda ba ba muy am doom kon mucc gi am doom ak ñeenti weer fukki fan la ci gën a sore rek loolu mooy doon iddaam loolu nag wax ju sore la joo xam ne taxul ñu dëgëruloo ko li gën a siiw daal li borom xam-xam yépp mujj jëfee. mooy bés bu amee doom ak lum jege-jege xiddaam day dal di jeex ni ko mbokk mi waxee ci laaj bi xidda bokk na ci li ko tax a jóg bañ askan yu jaxasoo nga xam ne ndaw si bala koo kenn di takkaat mu wóor ne fee mu jógee borom kër gi la génn àdduna wala kële fase ko dara toppewu ko fa waaye du loolu rek day ak jaamu yàlla ndigal la koo xam ne yàlla da ko joxe moo tax bu wóoree ne kii ëmbul du mu war a xeddawu diir bi mu war a xeddawu ni ko sharia yoonale kon loolu lu mata bàyyi xel la ci bunt boobu wallahu aalam kon ci laaj boobu jigéen ji boroom këram génn àdduna fekk amoon na doom deretam jeexagul walla mu gis dereti baax deretam jeexagul boroom këram génn àdduna ak nu mu mën a demee rek day jàppoo xedda diirub ñeenti wer ak fukki fan ñeenti weer fukki fan yi mi ngi tàmbali ci bés bi boroom kër gi génne àdduna bu dee ki ëmb nag moom comme niñ ko waxee bés bu amee doom fala iddaam di jeex moo xam njëkk na ñeenti weer ak fukki fan yi wala gannaaw ñeenti weer ak fukki fan la ñu xamit ne idda du lu ñuy fay koo xam ne toog na ñu ne ko yow sa boroom kër génnoon na àdduna daaw xiddaam weesu na doonte yëgutoon ko wala sa borom kër génn àdduna mat na ñetti weer la des ci ñeenti weer ak fukki fan yi rek keroog bi mu faatoo euh, foofu la xiddaam di jeexe bu doon toog na tey ñu ne ko sa borom kër génn na àdduna ñeenti weer boobaak tey te noonu la demee xiddaam fukki fan a ci des ñaareelu laaj bi mooy ki faatu bàyyi fi soxnaam ak way juram wu jigéen ak ay rakkam yu jigéen ak ay doom yu góor ak yu jigéen waaw lu mel noonu bu amee rakk yu jigéen ñi moom dootuñu doon ndax ay doom ay doom yu góor fuñ fi nekkee rek ay magaki rek amatuñ place ci miraas eh, ñi ko war a doon kon mooy soxnaam yaayam doomam yu góor ak yu jigéen yi nañ koy donnee it mooy soxna si ab sumun sumun lay doon ci moom sumun mooy bu ñu defee alalam juróom-ñetti xaaj benn ba yaayam ab sudus lay doon ci moom sudus mooy bu defee alalam juróom-benn xaaj benn ba li des ci alal ja nag doom yaa ko war a séddoo góor ñaar jigéen benn kuy donn sumun ak kuy donn sudus buñ dajee ci masala miraas comme ni mu amee fii tey dangay ngay boolante alal ji yépp def ko ñaar fukki xaaj ak ñeent 24. vingt-quatre yooyu boo jëlee ñett ya jox soxna si loola mooy ab sumunam nga jël ñeent ya jox wayjur wu jigéen wa loola mooy ab sudusam la ca des moom la doom ya di séddoo góor ñaar jigéen benn laaj bi ci topp mbokk mi ne na téereb alquran bu ñu jàngee ba téere bi xotteeku walla mu tilim ak di tasaaroo comme ni muy amee téere yooyu këyit yooyu nan lañ ko war a def ndax mën nañ koo gas suul walla mën nañ koo lakk waaw alquran luñ war a warmal la luñ war a màggal la du lu ñuy bàyyi muy taxawaalu ci ay mbedd ki ëtt rawat na di dem ci barab bu sobewu loolu lu xaraam la lu ñaaw la ab jullit fu mu fekk alquran ñu di ko fa dal di ko dëgg wala ma nga ca suuf wala foo xam ne mën naa dem ci sobe wala sobe fekk ko fa mu nekk na jël alquran ji warmaal ko musal ko ci doyadal googu yàlla dana ko ci bindal tiyaaba ju rëy euh, deseeti téere yooyu nag nga xam ne yàqu nañ te loolu di bari lool ci daara yi daa nañ ko gas di suul ci anam goo xam ne dañ koy warmaal seet barab boo xam ne barab bu laab la bu mucc la ci sobe jël kayit ya def ko ci lu mel ni ab saako wala beneen jumtukaay gas suul ko fa am na ñoo xam ni dañ koy lakk waaye am na ñoo xam dañuy boolante ñaar yëpp dañ koy lakk ba noppi daal di suul doom ba loo ci def rek ngir jubloo ñoŋal alquran musal ko ci ku koy doye dal loola lu am solo la wallahu aalam laaj bi ci topp mbokk mi day laaj kuñ doon jaayloo ab terrain ne ko jaay ko un million danga nga am dix pour cent moom nag mu jaay ko deux millions dem jébbal ka ko doon jaayloo benn million ba mu jox ko dix pour cent am ndax loolu dagan na waaw loolu kii ñuy jaayloo ak ka koy jaayloo lañuy waxante na doon lu leer bu dee aji jaay ji da koo charte ne ko njëg gi fii la yem bu mu weesu benn million boobu sañu koo jaay lu ëpp loolu bu dee daf ne ko nag man lii laa ci bëgg boo ko jaayee lu ni lu ko ëppit man daal li ma ci soxla mooy benn million bu fekkee loolu lañ chartante walla anam googu mooy aada ja ñuy jëfee kon kii jaay bu ko jaayee lu ëpp million ba euh, la ca topp rekk loola ab bénéfice am la dagan na mu jëfandikoo ko. bu dee kee ñu njëkkoon wax nag nga xam ne dañ koo yemaleel njëgg mayuñ ko mu jaay ko lu ëpp loola na yem ca lañ ko ko jaay looyee bu ca tegee dara ma ngay def lu xaram kon loolu dagan gi ak ñàkk gee dagan day dellu ci jëflanteeg ñaar ñiy jëflante nañu waxante lu leer lislaam dafa bëgg lu leer ay jullit lu ñuy fasante rawat na lu jëm ci mbiri xaalis Eh, dañoo war a waxante lu leer nañ ñi ba ëllëg lu mën a xewit ñu xam ne lii lañ waxoon ci lii lañ jubee woon eh, jëflante nañ ca kenn wàccul aw yoon wala bu kenn wàccee yoon it ñu xam ne moom moo wàcc yoon waaye jëflante ga moom ci cosaan lu leer la woon wallahu aalam laaj bi ci topp nee mbokk la moo xam ne bu amee doom mu toll ci war a jàng dana ko taxaw mu jàng mokkal alquran waaye bu mokkule rek mu dugal ko ci école yi mu jàngi français dootul yittewoo alquran ja ba xale bi day fëtt ndax dana am bàkkaar ci jëfam jooju walla déet li ñuy njëkk leeral fii mooy mokkal alquranul karim fardu kifaaya la maanaam bu ko ab lim defee ci jullit ni euh, doy na walis ña ca des yoona luñ ne jullit ñëpp ñëpp dañoo war a wattu alquran kon fardu kifaaya la yiwu rëy la it lu yàlla di tànn ñenn ci xeet wi jagleel leen ko la it am na ñuy sonn lool yàgg lool ci njàngum alquran te duñ ko wattu am ñuy wattu wattu gu rafet te yàgguñ ca njàng ma sonnuñ ca am ñuy yàgg sonn door a wattu lu ci ne am na kon jullit bi bu ko yàlla defalee tawfiq mu wattu alquran wala yàlla defal ko tawfiq njabootam gum yilif wattu alquran dafa war a xam ne yàlla defal na ko lu rëy loo xam ne da ko war a sàmm fonk ko nam koy fonkee mooy di nafar alquran di ko jàng ba du ko fët du ko fàtte du dem ba mel ni ku ko mokkalul woon rawatina bu dee xale ay kilifaam nañ ko dimbale ci muy nafar ak di tari ba alquran jooju mu wattu woon des ci ab dënnam loolu dana ko dimbale ci maneen njàng mu muy jàng mu mën a doon kii wattu alquran cib dënnam lu mu mën a jàng ci xeetu njàng yi ci kaw suuf alquran jooja dana ko ca dimbale ba du yem ak bu mokkulutoon alquranul karim kon bëgg a jàng tubaab wala bëgg a jàngi xam-xam wala métier ak leneen lu mu mën a doon wërta tax nit ki di fëtt alquran joo xam ne yàlla dajale na ko ci ab dënnam loolu yiw la wu rëy wu ñu war a fonk téye ko ak ñaari loxo euh, kon wayjur wi taxaw ak njabootam gannaaw bañ mënee alquran di leen soññi ak di góorgóorlu ba alquran ji des ci moom des ci ñoom loolu lu ama am solo la ànd ak nag bu fekkee xale yi nekk nañ ci meneen jàng wala sax nekkuñ ci meneen jàng dem nañ ba lañ wattu woon ci alquran fëtt nañ ko. duñ wax ne way jur yi dañu am bàkkaar ndax mokkal alxuraan du fardu ayni du farata ci xale yi waaw mën nañoo wax nag ne way jur wi taxaw gim waroon a taxaw ci njabootam daal euh, des na mënoon naa gën a mat ànd ak defut lu rëy loo xam ne da ci jële daani yàlla walla alxuraan da ko ci tëkku wallahu aalam laaj bi ci topp mbokk mi am bor ci weeru koor wi ñetti fan yum war a fay bëgg woor juróom-benni fan yi nga xam ne sunna la woor ko sunna la ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xemem looye aw xeetam wax ne ku woor weeru koor tofal ca juróom-benni fan ci weeru shawaal muy weeru korite mel na ni woor na at mi yépp ndax dana dagan buy fay ñetti fanam yooyu mu yéene wala ci woor juróom-benni fan yi nga xam ne bu fayee ñett da ciy tegaat yeneen ñett rek juróom-bennam mat wala day fay ñett door a tàmbali woor juróom benn waaw xadis bi nag buñ delloo ci cosaan bi yax bi baat yi yonent bi jàngale mooy ku woor weeru koor loolu liñ ciy déggee mooy bala ngaa woor juróom benn fan ci weeru baraxlu ci weeru korite ci weeru korite day fekk weeru koor mat na kon ki amee borub koor na fay ay boroom ba noppi door a woor juróom benn fan ci weeru baraxlu maa ngi wax baraxlu rek waaye korite laa bëgg a wax euh, muy shahru shawal euh, juróom benn fan yi mën nañoo sës ci weeru koor yi mën nañ cee bañ a sës li am solo mooy ñu bañ a génn euh, weer wi saa bu demee ba génn weeru baraxlu nag yiw ak ngëneel loolu yonent bi sallallahu alayhi waxoon dootu ci am ndax da koo tënk ci biir weeru shawal muy weeru korite ku woor ramadaan tofal ci juróom benn fan ci weeru korite mel na ni woor na at mi yépp bu dewee ne mu def ko def ko dundam yépp day mel ni woor na jamonom yépp kon lu am solo la euh, ànd ak loolu nag am na ci boroom xam-xam yi am na ci boroom xam-xam yi ñu wax ne ku amee bor ci koor gi bu koy fay man na caa yéene waale woor juróom benn fan yooyu ndax jubluwaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xadis ba rek mooy woor juróom-benn fan ci weeru baraxlu moo xam juróom-benn fan yi ak fay la wala loo nisiroon la wala looy doora a euh, yéene la di ko woor ngir jëfee ndigalul yonentu boobu kon daal am na ci boroom xam-xam yi ñu wax ne buy fay ñetti fanam yooyu mën naa yéene fay yéene wala ci mu doon kooru gàtt nga maanaam koor goo xam ne mooy juróom-benn fan yooyu nga xam ne sunnal nañ ko ci biir weeru korite wi bu fayee ñetti fan yi teg ci yeneen ñett juróom-benn mat ci waxi ñooñu li gën a dëgër gën a wóor nag te gën a mat mooy na fay ñetti fanam weeru koram door a mat mu door a dugg ca ñu ti bi wax ne man saama ramadaana ndax bu fayee ba noppi ci la ramadaanam door a jeex moom ku woor weeru koor woor na weeru koor ba mu mat ndax fay na ay borom door a tofal juróom-benn fan. ci weeru korite bi loolu mooy li gën a wóor wallahu alam beneen laaj bi mu ne ndax kii nga xam ne dañ koo njabar sañ naa saafarawu faju ci beneen njabarkat mu dindil ko njabar googu déedéet ak njabar ak nu mën a demee rek lislaam da koo bañ da koo xaraamal njabar mën naa dem ba génne nit ki ci diine moo tax jullit bi waru koo def daganul ci moom ci benn anam te ki njabar la gën a gaaw ci saafara ko mooy ñaan yàlla subhaanahu wa taala mooy alquranul karim alquran moo ëpp doole ak njabar kon saafarawu ci alquran ci ñaan yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko nit ñu baax ñi jàngale nañ ko waaye jullit ñi ñi ci yàlla dénk xam-xamu mën saafara aji feebar ji doonte dañ koo njabar wala bët bu aaye ko dal bari na kon saafarawu ci anam yu dagan yooyu amma saafarawoo njabar cig njabar loolu musiba la du lu baax wallahu aalam laaj bi ci topp jëm ci alwirdul maxuusu min allahi bi waasitati rasulihi sallallahu alayhi wa muy wirdo wi nga xam ne sëriñ tuuba radiallahu anhu moo ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi jëlee ko ci borom bi subhanahu wa kom nim feeñee ci tur Euh, wird la woo xam ne dafa am ñetti xeet am na ñetti anam dafa am alxafiif bu woyof ak alkaamil bu mat ak alxaatim bi nga xam ne moo mottali ñaar yu njëkk yi alxafiif ak alkaamil sëriñ baa ngi ko jotee ca gànnaar bu njëkk bi mooy alxafiif 1321 atum 1321 hijriya ca weeru koor wa ñaar fukki fan juróom-ñaar ci weeru kooram la sëriñ bi jot wérde woowu waaye ca juróomeelu fan ci weeru kore wa la ko joxe xaamisa shawaalin shahid naa karama ni ko bindkat bi waxe at ma ca topp di 1322 hijriya ca laylatu mawlid nabi guddi gàmmu la jot beneen bi muy alkaamil kon gis nga ñaar yooyu yëpp gànnaar la moo tax sëriñ bi kim njëkk a jox wirda naar boobu bind dalilu man raama dalil fii wirdi cheikhina al muqaddamil jalil ñaar yooyu la la la leeral nañ koy defee jàngale charte ak ngëneel yi nekk ci wirda wi kon gis nga ñaar yooyu moom gànnaar la ko jotee muy xafif bi 1321 hijriya kaamil bi 1322 hijriya ba guddik laylatul qadar ni ko jullit ñu bari dàkkee ñaari fukk ak juróom-ñaar ci koor gi beneen bi guddik gàmmu ginnaaw loolu yëpp nag ab diir ñetteel bi muy alxaatim nga xam ne moo gën a gàtt ci ñaari yële moo leen gën a gàtt la ko sëriñ bi door a jot kon gis nga ñetti ñetti xeeti wërda dala yoo xam ne ñett yëpp la ñuy boolante tuddee leen al wërdul maaquudu min allah benn boo ci berit benn boo ci berit tuddee ko al wirdul maxuusu min wallahu aalam laaj bi ci topp mbokk mi nee na daa am ko koy bëgga sartal ab palaas ne ko dangay liggéey bu at mi jeexee ñu regle lu fi génn ci bénéfice ñu def ko ñetti xaaj yow mii liggéey nga jël benn man ma jël benn benn bi delluwaat ci place bi moom nag li ko gënal mooy ñu warlul ko ak fay ne ko at mu ne lii lañ lay fay wala weer wu ne lii waaye day laaj ndax jëflante kooku mu njëkk wax lu dagan la waaw lu dagan la loolu la tuddee xiraab téere yi jàngale fiq jëflante ci wet yu mel noonu dañ koy beral buntu di ko jàngale lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoonaloon la lu xewoon la ci jamonoom kon loolu dara nekkut ci lu dagan la muy xiraat bu dee liggéeyu jaay ak jënd la wala oto buy daw la walla beneen jumtukaayu liggéey bu niroog yooyu ñoom ñaar ñu juboo ci saa bu bénéfice amee ñu seddoo ko ci def ko ñetti xaaj walla def ko ñaari xaaj ku ne jël benn wala luñ ci juboo rek loola lu dagan la dara nekkut ci wallahu a'lam laaj bi ci topp mbokk mi nee na xew-xew bu bees boo xam ne alquran addu wut ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam addu wut ci bañ xam ne nangam mooy atteem te mbir la moo xam ne soxla nañ ci atteem sharia te amuñu ab mufti ci réew mu mel ni senegal naka lañuy ñuy def ak kan lañ war a déglu lii mbir tey mbir mooy yàlla ginnaaw bi matalee diineem ji sàmm na ko yonent bi sallallahu alayhi wa leeral diine ji teg ko ci ngir yoon wu yaatu wu leer naññi woo xam ne kenn xàmmewul guddeem ak bëccëgam ndax lépp leer te ba àdduna yi tukki lépp lu gaar àtteeb sharia war a daw ci kawam yàlla tàggat na ci xeet wi ay boroomi xam-xam yoo xam ne danañ ko indil àtte bu méngoo ak moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëj na buntab nu bu wax waaye jàngale na ne boroom xam-xam yi ñoo donn yonent yi ba muy yónni ndaw ca yaman ngir mu wuutu ko fa di jàngale ak di woote jëmee ci lislaam ak di àtte jullit ña fa nekk sayiduna muaad ibnu jabal radiallahu anhu yonent da ko laajoon waaw bu dara xewee booy àtte ci lan ngay àtte mu ne ko ci yàlla bi mu ne ko boo ko gisul ci téereb yàlla bi mu ne ko ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko boo ko gisul ci sunna si bi mu ne ko ma jëfandikoo sama xel xiyaas ko ci téereb yàlla bi ak sunna si yonent bi moo tax diine ji am na ay xawaayit yoo xam ne yu leer la ci boroom xam-xam yi ba lépp lu gaar rek danañ ko génneel àtte bu méngoo ak moom am na mbir yoo xam ne nag yu jafee àtte lay doon fu mu xewee jamono ju mën a doon rek boroom xam-xam jamono ja ñoo ci gëstu bu jëree toog waxtaan ñu toog ci waxtaan ba dëppoo ci ne àtte bi mooy nangam yonente bi garanto woon na ne xeet wi du dëppoo du ñu dajee ci ak moo tax dañuy wax ne xisma mucc ci njuumte yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko yàlla defaloon waaye loolu mooy bu dee benn benn yi am maa xeet wi yëpp yëpp moom bu ñu leen boolante maxsuum la ñu doon xeet wi yëpp mën nañoo indi àtte boo xam ne njuumte la jamono ju nekk ay mbir ngi gaar ay xew yu bees waaye barab bu mu mën a doon ci àdduna ak jamono ju mën a doon rek boroom xam-xam yee ñu ngay góor-góorlu di xool lan la méngoog ci àttey lislaam yi ban la ci tolol ban lañ ko war a àtte di ko indil ay àtte yu leer comme niñ ko xamee kon Sénégal ak beneen réew bu dul senegal jamono ji ne ay boroomi xam-xam fa ak ñu seen xam-xam mën a toll lépp lu gaar yitteel diine ji buñ ci gëstoo wala ñu dajee ci waxtaan danañ ko amal àtte boo xam ne bu leer la te bu jub lay doon incha allah. laaj bi ci topp mbokk mi nee na faratay julli daa gis ñu ko lim fukk ak juróom ñi fukk ak juróom benn ñaar yi ban moo ci gën a wér. waaye na xam ne wuute bi ëpp na lool faratay julli am na ñu ko wàccee ba fukk ak ñaar am na ñu ko lim fukk ak ñett ko lim fukk ak ñeent kon ay wuute yu bari la wuute yi nag la koy jur léeg-léeg ci xeetu nañ ko limee la ci misaal am na koo xam ne bu lay limal faratay julli dalay wax yéene muy benn jàll ca ya ca topp ba julli gi wala ba farata yi jeex am na koo xam ne nag yéene jooju dana ca génne beneen ñaareelu farata mooy bu dee ma'muum la ma'muum day yéene roy ci ilimaan ma'muum day yéene julli loolu farata la waaye yéene gi muy yéene roy ci ilimaanam farata la kon foofu dangay am ñaar gis nga ne ku lim ñaar yi da nga benn ka lim yéene rek yem ca waaye faratay julli daal la ca gën a fés. te daanaka ñu dëppoo ci ne farat la mooy yéene aji julli ji faw mu yéene li muy julli moo xam ilimaan la maamum la kuy julli moom kenn la loolu benn la ñaareel bi mooy kàbbaaru xarmal allahu akbar ñetteel bi mooy taxawaayu kàbbaaru xarmal boobu ñeenteel bi mooy jàng faatixa juróomeel bi mooy mooy taxawaayu jàng faatixa juróom benneel bi mooy ruko juróom ñaareel bi mooy siggi siggi ci ruko juróom ñetteel bi di sujoot juróom ñeenteel bi di siggi ci sujoot fukkeel bi di sëlmal fukkeel ak benn di toogaayu sëlmal léegi nga lim maamum roy gi muy roy ci ilimaanam loolu da ko yéene yéene maamum roy ci ilimaanam am fukk ak ñaar lim toftale gi toftale gi muy toftale julli gi yéene kabar xarmal di jiitu rukkoox di jiitu sujjóot ba sëlmal di mujj muy fukk ak ñett lim yemoo ak dal yemoo fukk ak dal muy fukk ak juróom maanaam aji julli gi bu taxawee masalan na taxaw taxaw bu jub bu mu jeng jëm ci benn wet bu toogee noonu bu sëggee ci rukoo ak sujjóot yépp kadalika waaye ay cëram it nañ dal bu taxaw wala mu sëgg wala mu toog di yëngal ay cëram yooyu yëpp rek lañuy lim muy farlu yi nga xam ne moo gën a fës gën a siiw ci faratay julli laaj bi ci topp mbokk mi nee na ndax nit sañ naa def ci alalam loo xam ne day tax ku ca sàcc dee a ah, loolu bu dee ak njabar la bu dee ay xërëm ak loolu lislaam da ko xaraamal lislaam dafa xaraamal njabar mboolem ay xeetam bu dee ak ñaan la day ñaan yàlla moo xam ñaan gu muy jàng ci làmmiñam wala gu muy bind ci xalimaam wala ak ñaan yàlla ci gépp anam guñ mën a ñaane ku jël alalam dee loolu la ñaan yàlla ah li ñu xam daal mooy lislaam wutal na sàcc àtte yu ñu xam yu bokkul ak rey àtte bi mooy Euh, dagg ab loxo comme niñ ko xamee ba mu des rek sàcc bi nga xam ne moom ngànnaay la yor di xeex di jël xam ne bu la jekkoo sax mën na laa gaañ wala mu ray la kooku moom mu la euh, atteem mooy dañ ko war a rey léegi nag yow mi nga xam ne dangaa jàpp sab sàcc sañoo def ci moom lu ëpp àtte bi ko lislaam teg maanaam dagg ab loxoom te du yow yaa koy defal sa bopp da dem ci àttekat ci buur ak ay ndawam ña méngoo loola ñu def ko bu dee sàcc bi yor ngànnaayam nag ñëw bu la jekkoo faat la wala mu gaañ la moom xeex ak moom boo ko jekkoo faat ko dara nekkut ci kon ku mel noonu kii ñu mujj wax ñaanal ko yàlla mu dee bu bëggee def lu mel noonu ci sa alal loola mën nañu wax ne du lu aay waaye ki nga xam ne nag yëggul foofu fayu fayu alquran yoral na ko waaye dafa wax ne booy fayu nanga nga lu toll ni liñ la tooñ kon def ci sa alal loo xam ne nit dana ñëw sàcc wala nga ñaan yàlla yàlla nangul la ku sàcc sa alal ak lu mu néew néew ak nu mu mën a demee rek de ah, dëgg dëgg loolu doonut lu jaadu doonut loo xam ne julit bi war na koo xalaat ndax am na ci nit ñu baax ñi defe naa abul xasan ash muy wax ne man qatala bi da'watihi ka man qatala bi sayfihi képp ku rey nit ci ak ñaanam daa mel ni ku rey nit ci jaasim bakkaar bu toll noonu lay am fa yàlla kon ki yàlla may ijaaba may ko xam-xam ba ku jël alalam faatu dëgg-dëgg mën naa seet lu gën a woyof lu méngoog daan yoo xam ne moom lañuy daan ku jël alal te bañ a yegg ci faat bakkan wallahu aalam kon mbokk yi lépp loo xam ne si waxtaan la wu jaaroon fii ci al ibadatu wal xidma képp ku ko bëgg a dabu wala mu am lu la ci rëccoon mën nga koo fekk ci sunu chaîne YouTube bi wala nga télécharger ci Play Store al ibadatu wal xidma lépp lu fi jaar danañ ko dugal foofa jërë ngeen jëf